salaamaaleykum wa rahmatullah Touba ci kanam Nour Daara ni ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziare bu baax euh, commission des finance su commission gestion des fonds ñu leen doon andil bilan mensuel bu mois de juillet deux mille vingt quatre dañuy tàmbale ci li dugg ci compte Touba ci kanam ci mois de juillet Touba moo ci jiitu dugal nañ quatre vingt et un millions cent soixante mille deux cent quarante. xam naa duñ ci mën a ñàkk tudd jàmbaar yi nga xamante ne ñoo gën a fës ci collecte bi. Euh, dañ ci jiital soxna Bintu Mbàkke lim ci dugal toll na ci sept million six cent cinquante mille soxna Fat Ja dugal un million cent mille soxna maam Awa Touré dugal trois millions cinq cent mille soxna maam Fatim Mbay dugal cinq millions dix mille Baye Sëriñ Lay dugal quatre million cent soixante quinze mille Baye Modou Mbay dugal deux million cinq cent cinquante mille fédération soxna maam Marème Mbàkke euh, ci Jannatul Mahwa dugal un million cinq cent vingt deux mille fédération yoon Daaru Rahman ci njiitul soxna na bu Sène dugal un million trois cent soixante quinze mille soxna Bintu Sarr dugal cinq millions huit cent mille fédération Ndindi ci njiitul soxna Abi Mbàkke dugal nañ un million soxna Mbayang Jum dugal sept millions soxna Njaxat Mbàkke dugal deux millions deux cent quatorze mille camion écran yi nga xamante ni mooy camion écran LED yi numéro un bi dugal na un million quatre cent soixante dix mille numéro deux bi dugal deux millions cinq cent onze bu dee Mbàkke ci njiitul Adja Dior Gueye ak soxna ñaaw Mbàkke ak soxna Mbenn Mbàkke dugal nañ six cent mille Wave plateforme bu tubaat ci kanam dugal na neuf millions cent quarante deux mille huit cent trente deux bu dee Wave soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois dugal na trois million neuf cent soixante mille quatre cent quatre vingt bu dee plateforme Orange ne dugal na un million sept cent vingt neuf mille huit cent vingt trois bu dee application bu Touba ci kanam bi dugal na cent soixante cinq mille cinq cent quatre vingt seize Dakar la ñuy dem ci njiitalul Baye Serigne Bousso ak Serigne El Ndaw dugal nañu huit million vingt mille sept cent vingt francs bu dee Thiès ci njiitalul Serigne mbay Sall ak soxna maam Bousso Mbacke dugal nañ deux millions cent dix huit mille bu dee Kayar ci njiitalul soxna Astu Waaj dugal nañ quatre cent trente cinq mille bu dee département Dagana ci njiitalul Serigne Aliou Ñing dugal nañ cinq cent trente trois bu dee Diourbel ci njiitul soxna Ndeye Ndiaye Manel dugal nañ un million cinq cent trente sept mille daayira Baabul Ayaadi ba nekk Fuuta ca Añam dugal nañ cent six mille Kaolack ci njiitul Serigne Moustapha Touré dugal nañ un million sept cent département de Kébémer ci njiitul Serigne Gora Sylla dugal na un million ñeneen ñim àndal liggéey bi foofu ci njiitul Serigne Ousseynou dugal nañ un million cent buñ ko boolee Kébémer dugal na deux millions cent Kédougou ci njiitul Serigne Modou Lo dugal nañ quatre cent quatre vingt onze mille Joal ci njiitul Serigne Bassirou Thiaw dugal nañ sept cent cinquante huit Louga ci njiitul Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ deux millions six cent mille six cent francs bu dee Mbour ci njiitul Serigne Mor Souran dugal nañ un million sept cent cinquante six mille ci njiitul Serigne Adama Niass dugal nañ huit cent quinze mille Mudéeri ci njiitul Serigne Bassirou Ndiaye dugal nañ cinquante mille bu ko defee Saint-Louis ci njiitul Serigne Ridial Seck ak Soxna Rama dugal nañ neuf cent mille Njaawara ci njiitul Serigne Cheikh Anne dugal nañ soixante dix mille Bakkan Laman ci njiitul soxna Ndey Saar ak soxna Jaba Njaay dugal nañ cent mille Jawbe ci njiitul Sëriñ Baara Jóob dugal nañ cinq cent cinq mille versement anonyme yi mooy yi nga xamante ni ñi koy dugal duñ leen xam dañ koy verse directement ci compte Touba Ca Kanam yi liñ ci dugal ci mois de juillet toll na ci trois millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatorze francs Vélingara ci njiitul Sëriñ Mbàkke Guèye dugal nañ cent mille francs asio yi nga xamante ni euh, banques yi dañ koy dagg ci di ko waat liñ ci dugal toll na ci cinquante neuf mille cent seize francs Kujaan ci njiitul Serigne Ibra Niang dugal nañ vingt mille francs am na jaayante bu dugg ci mois de juillet bi toll ci neuf millions neuf millions yi nag ñi mu tëddee euh, Sénac di kër gi jaay peinture ñoom indi woon nañ cinq millions dugal ko ci Touba ci kanam réseau yi nekk ci Touba ñoom andi woon nañ million soxnay Touba ci kanam ci jaayante bi Serigne Abib woote woon indi woon nañ ci trois millions suñ ko boolee loolu mooy neuf million Casamance ci njiitul Serigne Mamadou Khary Guèye dugal nañ deux cent cinquante mille trois cent. Fouta Orkadiéré ci njiitul Serigne Modou Ndiaye dugal nañ cinquante cinq mille. Fouta ci njiitul Serigne Bassirou caw dugal nañ soixante quinze mille. Fouta Nabadji ci njiitul Serigne Khadim Bamba Ndiaye dugal nañ quinze mille francs. Fouta Bokiladji ci njiitul Serigne Mouhamadou Fadel Dia dugal nañ cent cinq mille. Mekhe Lambaye ci njiitul Serigne ba Faye dugal nañ cent mille francs. Mboro ci njiitul soxna Bintu Touré dugal nañ deux cent mille francs Tiwaawoon ci njiitul sëriñ Mamadou Diop dugal nañ cent cinquante mille loolu mooy li dugg ci compte Touba Ca ci biir réew mi toll ci cent trente cinq millions six cent quatre vingt quatre mille huit cent vingt et un francs ñu dem bitim réew ci diaspora bi tàmbalee ko ci continent bu Amérique Brésil lañ ciy jiital ci njiitul sëriñ Seexuna Xulle dugal nañ cinq cent quatre vingt huit mille cinq cent États-Unis ci njiitul sëriñ Sohaybu Sekk dugal nañ un million trente deux mille Uruguay ci njiitul Serigne Ndongo Niang dugal nañ cent quatre-vingt-sept mille cinq cent zone Amérique bi li fi dugg ci mois de juillet bi toll na ci un million huit cent huit mille ñu dem ci continent bu Europe coordination bu Italie dugal nañ trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit coordination bu France dugal sept cent quarante-neuf mille cinq cent cinquante euh, jaayante màggal euh, coordination bu Espagne dugal nañ ci un million quatre mille deux cent soixante-cinq su ko defee loolu mooy li dugg ci continent bu Europe toll ci six millions cinquante mille quatre cent treize francs ñu dem ci continent bu Afrique Mali moo ci jiitu ci njiitul Serigne Aliou dugal nañ trois cent cinquante cinq mille Côte d'Ivoire ci njiitul Serigne Mor Fassé dugal nañ un million cent cinquante mille Gabon ci njiitul Serigne Xaasim Sarr dugal nañ trois cent quatre vingt dix mille Afrique du Sud ci njiitul Serigne Mor Dieng dugal nañ cinq cent quatre quinze mille jaayante màggal bu Côte d'Ivoire dugal nañ ci trois cent quatre mille cinq cent Cap Vert ci njiitul Serigne Abdou Lahad Amar dugal nañ deux cent mille loolu mooy li dugg ci continent bu Afrique toll ci deux millions neuf cent quatre vingt mille cinq cent francs am na journée bu Touba ci kanam di waajal ca Dakar ci femme diaspora bi organiser ko ñu ciy profiter di ci woowaale ñëpp mbokki taalibe bi yëpp muy am le 7 septembre 2024 liñ ci jot dajale toll na ci deux million cinquante mille francs machine yu Touba ci kanam yi euh, yi ñuy luye location bi ci mois de juillet dugal na un million cent quatre-vingt-dix mille su ko defee loolu mooy li dugg ci compte Touba ci kanam ci mois de juillet muy ci biir réew mi ak bitim réew su ñu ko boolee day toll ci cent quarante-neuf millions sept cent soixante-dix-sept mille sept cent trente-quatre francs kon ñu indi leen li nga xamante ni mooy liñ ci décaissé mu jëm ci liggéey dañ koy tàmbalee ci poste de santé bi nga xamante ni Touba ci kanam ma ngi koy tabax ci Aliya liñ ci def ci mois de juillet bi toll na six millions huit cent soixante neuf mille cinq cent chantier bi nga xamante ni Touba ci kanam mi ngi koy tabax muy siège bi liñ ci dugal toll na ci deux millions huit cent cinq mille cinq cent li nga xamante ni mooy opération defar yoon yi te Touba kanam nekk ci ci ay liggéey yu ama am solo muy tali yi nga xamante ni dafa am jafe-jafe ñu koy defaraat radier yi ak euh, pavage bi nga xamante ni démarré nañ ko ca ndaamaatu liñ ci génne ci mois de juillet bi toll na ci cent quarante quatre million sept cent trente neuf mille deux cent vingt et un francs su ko defee commission leeral ñooy saytu làmp yi montage beeg yu ni mel ak entretien yi li liñ ci génne toll na ci sept cent soixante trois mille quatre cent vingt cinq dépense urgente yi nga xamante ni day génn te du mën a topp procédure bu gudd bi cinq millions lañ ciy génne saa jeexee ñu génne waat beneen génn nañ ci ñett yoon cinq millions mu toll ci quinze millions barabu fajukaay bi nga xamante ni ma nga ca Madiana 6 Touba Ca Kanam di ko def foofu génne na ci mois de juillet bi un million vingt cinq mille su ko defee beneen barabu fajukaay bi nekk ca Touba Sam moom génne nañ ci neuf millions deux cent quatre vingt deux mille cinq cent commission des finances sous commission bi yore quatre membres yi am na carte yu ñu doon confectionné ak ay saak saak yi ñuy def blog yi génne nañ ci un million cinq cent vingt cinq commission communication lu jëm ci contrat yi ñuy séq ak yenn tele yi euh, Bichri TV contrat bi ñu séq ak moom ak yu ne mel liñ ci génne ci mois de juillet bi toll na ci deux millions neuf cent un mille neuf cent quatre vingt dix sept francs commission scientifique et culturelle saytu wàllu njàng meeg daara yi ak daara Touba ci kanam yi nga xamante ne ñu ngi koy tabax li liñ ci génne ci mois de juillet bi toll na ci neuf millions deux cent vingt trois mille quatre cent vingt francs commission logistique bi nga xamante ni moo yore oto yi Touba ci kanam yi parc automobile bi ak lu jëm si réparation yeeg machine yeeg carburant bi liñ ci génne ci mois de juillet toll na ci vingt six millions huit cent soixante quatre mille cent soixante neuf francs commission environnement ñëpp gis euh, liggéey bi ama am solo bi ñuy def jëm si garab yi Euh, li ñu def ci dëkk bi ci ay garab bari lool waaye garab yooyu li koy protéger muy grillage yi nga xamante ni dañ ko ciy def ak fer bi nga xamante ni moo koy liggéey ak yu ni mel liñ ci génne ci mois de juillet bi toll na ci treize millions quatre cent cinq mille trois cent cinquante francs commission massification euh, li nga xamante ni ñu ngi koy génne ci massification jëm ci région yi ak waajtaayu bis bi ngi ñu amal Dakar li ñu fay Grand Théâtre ñu ci génne toll na ci trois millions neuf cent soixante quinze commission santé li nga xamante ni jëm na ci poste de santé yi ak centre de santé yi euh, matériel médical yi nga xamante ni jën doon nañ ko muy ay équipement liñ ci génne ci mois de juillet bi na ci onze millions quatre-vingt-seize mille six cent soixante-dix francs commissaire au compte Kanam yi mission yi ñuy def frais yi ciy def muy carburant yu ni nañ ci trois cent douze mille sept cent euh, li nga xamante ni mooy charge fixe yi ak salaire yi nga xamante ni Touba Ca Kanam mi ngi koy fay ci mois de juillet bi génne nañ ci dix huit millions sept cent quatre vingt neuf mille trois cent vingt sept francs commission bi nga xamante ni moo yore hydraulique wàllum ndox mi ak assainissement li ñu génne ci mois de juillet toll na ci neuf millions six cent cinquante deux mille zéro vingt cinq francs commission soxna yi muy commission féminine li ñu jot a génne ci mois de juillet toll na ci cent soixante huit mille cinq cent commission sociale bu Touba ci kanam ñëpp xam nañ ne ab jaayante la waaye am na ñu ko Touba ci kanam di jàppale ci mois de juillet bi génn nañ ci deux millions trente huit mille frais euh, commission commission administrative li nga xamante ni ay matériel bureautique la ak yu mel liñ ci génn toll na ci trois cent neuf mille zéro cinquante francs frais bancaires yi nga xamante ni day génn ci compte yi génne nañ ci mois de juillet cinquante trois mille zéro quatre vingt seize francs su ko defee loolu mooy li génn ci keesu Touba kanam ci mois de juillet toll ci deux cent quatre-vingts millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante francs deux cent quatre-vingts millions sept cent quatre vingt dix mille quatre cent cinquante francs lii nekkoon ci compte Touba kanam ci fin mois de juin tolloon na ci deux cent soixante-trois millions cinq mille sept cent vingt-trois francs li ci dugg ci mois de juillet toll ci cent quarante neuf millions sept cent soixante dix sept mille sept cent trente quatre francs su ñu ko boolee day nekk quatre cent treize millions deux cent quatre vingt sept mille quatre cent cinquante sept francs ñu ci génnee li nga xamante ni mooy dépenses yi décaissement yi jëm ci liggéey yi toll ci deux cent quatre vingt millions sept cent quatre vingt dix mille quatre cent cinquante francs kon ci le 31 juillet 2024 li des ci compte yi Touba ci kanam yi mi ngi toll ci cent trente deux millions quatre cent quatre vingt huit mille zéro sept francs cent trente deux millions quatre cent quatre vingt huit mille zéro sept franc ñëpp gis nañ ne compte wàcc na bu baax a baax nag xam naa ñuy gën a soññaat suñu bopp di gën a di gën a soññaan bokk taalibe yëpp ñu gën a jàpp si liggéey bi ndax liy xaar Touba Kanam ci dëkk bi bari na lool te li ci Touba Ca Kanam di xaar pour liggéey ko génnut mille franc kon ñu ngi ciy soññ ñëpp jërë ngeen jëf. ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba Ca Kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci moni paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu andil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a yónnee ci Touba ca kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci konti Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba.